di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen ah. di ñaanal réew mi jàmm nuyu suñu kilifa di nekk suñu kilifa aada yi tey nag ñu dalal suñu consultant moom mooy consultant people 221 ci wàllu làmb mais léegi euh, vraiment gis naa ne paa léegi dafa yeg succès ah nee na léegi émission yi ñu koy def ñu koy def ñu koy def suba gi ngoon gi dootul amati jot parce que bu a day naan lëwal vraiment comprendre ma quoi mu nekk suñu père nag nekk père bu baax ji lañ lay bàyyi nga nuyu ñu ñu ngi leen di ziar bu baax leen nuyu. di nuyu waa people 221. sa kër ah, ñu koy suivre ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar bu baax a baax a baax a fi may ah. njëkkee ah, naka nga gisee début saison bi daa mel ni actuellement ni combat yi neex taxaw na. waaw début saison bi ñu ko jeexee xam nga bala maa wax dara aussi foog ma wax leen ni actuellement ñu ngi fii ci bijouterie Bada Thiam. waaw waaw moo dalal. waaw moo di ngeen yi fi nekk yëpp lépp loo xam ne soxla nga ko rek boo ñëwee moom <laughs> Fallaaw day yomb ci yow. waaw di la wax ne eh, ñu ngi leen di nuy di leen ziar di teewlu émission bi quoi. waaw. léegi euh, début saison bi ni saison bi commencé ni euh, ban analyse nga ciy def. waaw léegi man naa ni fi mu toll nii analyse moo ci def parce que fi mu toll nii sax na début saison bi romb ah, ñu ngi ah. mi saison. parce que vraiment combat yi làmb ji vraiment teg nañ ko ci yoon. Uh-huh. ah te làmb commencé naa wane boppam commencé naa wane beneen xar kanam ay champion yu bees ñu ngi génn combat yi parce que combat yi ko fisalee dafa yàggoon quoi mi ngi mi ngi dogo mi ngi dogo ñu ngi commencé fecceeku ndànk-ndànk daal uh-huh. waaw. comme li nga wax aussi tamit saison bi combat yi taxaw na aussi tamit neex na trop. mais euh, mu mel ni dimanche bi passé am na ay lamb yu neex boo xoolee ñàkk jëriñu ak Jackson Jackson waneeti na boppam Boursine ak général bu Malika nga ñëw ci ki nga xamante ni moo di euh, Doudou Sané ak ak Boy Mbour combat yoo xam ne dimanche bi passé vraiment lamb dundaat na quoi ci amateurs yi. waaw xam nga dañuy bëgg yu mel noonu ci lamb généralement parce que lamb dimanche galaala la te gala bi dix combats yëpp presque benn bu ci nekk moom naa doon journée boppam. loo tax làmb wane boppam dimanche. Mhm. parce que yoo xam ni presque grand combat bi amul yenn yenn yenn yi mënoon nañ ni amul yenn montage financier yu garaaw yooyu mais nag dix combats yëpp dafa tegu ci aw yoon dix combats yëpp dafa neex. benn bu ci nekk rek mën naa ni grand combat la quoi. Uh-huh. loolu moo tax làmb wane boppam. Uh-huh. te dix combats yi amul benn làmb bu ci naqari. Uh-huh. presque mën naa ni benn amu ci demu ci mi-temps. Mhm. yëpp dafa ci timing bi nga xam ne moom leen la tegoon ah. am na xeex am na bëri am ay xale yoo xam ne ay révélation yi woon na seen bopp dimanche passé mm-hmm. waaw mm-hmm. Euh, général bu Malika li mu indi wane ko ci sañ-sañ ci doole ci entraînement koo gis xam ne pare na mm-hmm. malgré que Bour Sine pare na mais combat bi noonu rek la mënoon demee ci moom. Mhm. mais booy bi ñuy wax Jackson. moom dafa ñëw wane waat Jackson waaw indi uh-huh. xeex indi forme bu doy waar. indi bëre doon daanaan war a feeñalaat boppam moom tamit. combat yëpp benn par benn yëpp a neex yëpp a jaar ci yoon. waaw yëpp a jaar ci yoon. ñu gis ne aussi tamit daanaka xaw na am changement lamb ji passé teel na commencé aussi tamit teel na jeex ñëpp ñibbi ci jàmm quoi mu mel ni CNG daf si jël ay mesures barrières am. waaw CNG li mu jël mooy xam nga euh, euh, taxi yu bees yi li mu li mu waxoon heure bi ñuy commencé lamb. dafa baax ci làmb parce que heure bi ñu koy commencé moo tax temps bi bu fekkee par exemple combat dafa neex rek demuñu mi-temps làmb ji day gaaw quoi day gaaw. parce que li ko waral mu gaaw mooy teel nañ ko commencé mais aussi làmb yi amul benn bu ci bu ci dem mi-temps ah. yëpp a gaaw. Mhm. loo tax heure bi nga xam ne moom nga bëgg timing boobu day baax. Mhm. ma ñëw ci mu mel ni keroog am ngeen ci ñaari combat waa école de lutte Faram mu di kii Bada Euh, Faram Junior ak Boussita euh, ngeen am benn champion boo xam ne dafa mel ni gars yi dese nañu koo ràññee ci làmb ji mu di Bada te mu nekk champion ci làmb aussi. waaw Faram Junior moom presque mën naa ne dimanche passé mooy dixième combat. waaw combat am yëpp daf ko daan benn défaite la am début début de saison. Mhm. début carrière am. Uh-huh. boobu ba léegi. mbër la boo xam ne am na discipline nangu na entraîné te ay combat yu teeng la am mhm. ay champion la daan boo boo xoolee ñi mu mujj a daan petit kona bu tëngéej la la jël daan ko ci saison bi nu ubbiwaat mu jëlaat euh, Kaw Cissé muy mbëru mbapat doon champion aussi. waaw mais ji nga ne ba mu bëreeg moom ni mu ko def. Hmm. il est temps nag booy mel noonu nu nu nu waa Géejawaay tàndal leen. leen dëgg la jàppale leen. dëgg la te Fadam Junior champion la. dëgg la champion la. dëgg la te li ba mu sumee ko. Hmm. ku ko xam ni grand combat bi ñun ñoo bëre grand hmm. sax boo ko joxoon mu sëgg ak ñoom. d'accord foofu noonu laay ñëw ana guy gi. waaw guy gi nag gëj naa ko gis. gëj nga ko gis waaw. Euh, koy dégg téléphone rek. yaa ngi dégg mu mel ni ñu ngi wax combat moo Yékini Junior daa mel ni ci yéen la yàqoo. non man kenn woowu ma ci. kenn woowu la bu ñu la joxoon Yékini Junior pare nga pour jël ko. kan Yékini Junior. pare naa pour jël ko. waaw mais loolu bala ngaa xam pare nga pour jël ko wala déet am promoteur bu ko bëgg benn promoteur waxuma ci. benn promoteur waxu la. waaw te Yékini ni nekkatul ci làmb Ah. non nekku fii mbër bu may jël mbër mu nekk ci laa ma laay bëreel koo xam ne mu ngi fii mi ngi jël ay combat mi ngi ñëw am laa ngi koy gis mais mbër moo xam man ba ma ko ki nga wax ni ba ma ko yàgg na d' accord Yékini Junior d' noonu laay ñëw ci combat bi nga xam ne euh, dimanche am na ah. mu di Balla Gaye Boy Niang dama bëgg nga analyser ma bala ñuy dugg ci biir combat bi analyser ma combat Balla Gaye Boy Niang bon analyse bi may jëkkat def ci combat Balla Gaye Boy Niang mooy bu dee côté booy Niang Boy Niang am fu mu amee problème parce que Boy Niang ñaari dafa am problème ci poids lourd yi jàpp naa ne. parce que ñaari dernier sortie am ay pois lourd la ah. lay jël waaw ñaari ñëpp daf cee am defet dal de guerre koo daan ñun dina waay Tapha Tine da koo daan mu amaat pois lourd day leeral si day wane si ni am na ak njàngat ci ñaari combat yooyu wala problème bi mu ngi existé ba tey parce que li ko la de guerre daane Tapha daan ko ñooñu ay poids lourd lañu comme Balla Gaye kon. dafa benn équation boo xam daf ko war a leeral dafa war a leeral ndax moom dafa am problème contre les poids lourds wala tiré na ci ay leçons estafam na nañu ay leçons ci fi mu amee problème ci poids lourds yi te combat bi moom moo ci am avantage. moom booy ñaax. waaw. Mhm. moom la war a gën a ñor. d'accord léegi ma ñëw ci seen ci seen communication ah, parce que naa ñëw ci état de forme bu mbëri ak li fi jot a xew yëpp euh, seen communication mu mel ni booy ñaax. Euh, dafa am ci lu mu toog parce que heure bu waxee mu ngi naan Balla Gaye dem na ba naan ko dama lay dama lay dama lay régler ci une minute est-ce que mbër mu toll ni Balla Gaye Boy Niang war na koo mën a régler ci une minute du ma ko daan ko. waaw ah doo dem guerre doo wax bal bi ngay xeexee quoi. loolu stratégie de combat la rek. Mhm. parce que ni euh, sax yow déglu signature Balla Gaye. parce que Balla Gaye yi daan def rek la la booy topp ci moom war ko ko def tamit. mais nag. Balla Gaye moo xam ne du mbër mooy mooy mooy appel ay une minute ak deux minutes. parce que ngay appel une minute ak deux minutes mooy ki nga xam da ñëw appliqué ci moom. te Balla Gaye du xaar arbitre wàcce loxoom moo indi li mu am lu mu fa fekk nag jël. Mhm. loolu lay bëree loolu la ko ñëpp xamee. dëgg la c'est un attaquant. dëgg la un attaquant nag doo ko ni nii laa lay attaqué. dëgg la kay da ngay jéem a bu la attaqué nga war a xool noo koy contrer. dëgg la mais Balla moom kuy bëree ak moom. li mu indi nooy def ba fay ko ngay xool waaye tàkk-tàkk moom day am dëgg la mu mel ni Balla Gaye tamit ci côté communication combat bi dafa xaw a réservé wu parce que Balla Gaye chaque combat daraan génne benn challenge mooy dama lay duuma daan la ay ay ay ay ay doon mais combat dañu gis ni dafa xaw a dafa xaw a téye boppam ci côté communication c'est son devoir le plus absolu di nga bala bala Gaye n'a plus rien à prouver ci làmb bala Gaye n'a plus rien à prouver ci làmb li mu waroon def yëpp def na ko comprendre nga li mu waroon def yëpp def na ko. bala daan na Boy Niang du yóbbu Balla gay fenn man bala Gaye daan na Boy Niang du yóbbu bala gay fenn parce que mënoo def li nga def ba doon roi des arènes tourné ki mujj daan Boy Niang nga mujj nga daan ko yow muy tafaatin bala Gaye bu daanee Boy Niang lan la la lan la xaalis la ci mën a am ak coow lu bari rek waaye du ko yóbbu fenn de wax dëgg yàlla par rapport contrairement Boy Niang daan na Balla Boy Niang loolu moom. c'est son devoir le plus absolu ci loolu la war a liggéey loolu moo ko mën a osé moom. moom moo war a mooy mooy war li li fa war a am moom moo ko war a def si. Boy Niang mhm. li war a am moom moo war a def si mooy xale moo bëgg a yéeg ci kaw. te nag sa waay boo fekkee da ngaa daanu ñaari luur daanu la nga ñëw jël troisième luur daanu. kooku da ngay wàcc da ci underground bi nga jëm da mayaat loxo booy yi nga xam ne ñu ngi yéeg. mais ci côté boobu noonu mu mel ni euh, Boy Niang combat bi daf ci xaw a jël benn pois par rapport ak man bi ma ko xoolee keroog open press am bi euh, mu nekk athlète mais aussi dafa mel dafa xaw a jël benn poids est-ce que nekkul liñ koy wax ci luur yi moom la sóoraale ba tax mu xaw a yokk poids. booy ñaa saa bu sumee koo rafet. Mhm. nan ko ko nangul. liggéey na ci doole. Mhm. liggéey na ci physique. bu sumee koo jekk. Mhm. combat yi mu ñàkk sax day ñëw sumee ko yor forme bu rafet. mais lamb c'est autre chose man nga jekk rafet entraîner. ñëw am problème ci ki ngay dajal kooku ça n'a rien à voir ak entraînement yi athlète la liggéey na gis naa ko forme bu nice la yor mais est-ce que loolu doy na aussi pour daan Balla Gaye absolument parce que Balla Gaye tamit dem bi moo ko gisee ci open pressam bi mu mel ni dafa xaw wàññeeku Balla Gaye est-ce que wàññi poids ci combat moog Boy Niang arrangé ko ci Balla Gaye bu wàññiwul poids ci combat moog Balla Gaye Boy bu ñëwee du bëri di yow Balla Gaye bi mu yoroon bi muy bëri yeneen combat yi bu ko bëri Boy Niang fu mu jëm day benn place Mm-hmm. te Boy ñaar day bëri si bëri kët da war a wàññi poids ba mën a bëri loolu moo lay wan ne combat bi bëri moo ko yëkkati day bëri si ñaar ñaari mbërëntaan lan mais Boy Niang na xam ni Balla Gaye day bëri si dëgg la day bëri si de moo tax mu wàññi poids ba dëgg la ah waaye tamit yaram bu bëri yàpp bu bëri dafa am njariñ amul njëriñ mbër da ngay da ngay wow koŋ physique dëgg ñëpp mm-hmm. loolu mooy mbër mm-hmm. boo bëggee doon bëri kët ma ñëw ci seen état de physique ah euh, fi may njëkkee mooy Balla Gaye démb ñu gis ni bi mu ñëwee ci open press bi daw na wër stade bi te ñu bari aussi dañ jàppoon ne Balla Gaye bu dawee fii ak bundu këram day sonn mu ñëw wër stade bi bëggal supporter am ñëwal ma ci état de physique bu ba xam li mu indi doy na. waaw Balla Gaye naa ne état de forme bi mu yor liggéey na parce que nag bi yoon sax nar a liggéey moo tax Balla demul fenn làmb làmb kenn du ko jàngee làmb làmb fii la am comme làmb fii la am Balla fii la toog préparé làmb contact la ak physique mu préparé ko ak waa école am ak waa géejawaay loolu moo lay wan ni combat bi jaral na ko loolu moo tax mu yor état de forme bu mu yor nii état de forme bu baax la yor. Uh-huh. mais man bu fekkoon dafa ñëw andi leex wala mu andi yenn yaram yi aussi dañuy tiit ci moom puisque déplacement yi du ko mën. Uh-huh. loolu mooy problème bi. mais mais mais Boy Niang aussi tamit ci wàllu physique am Boy Niang comme li nga wax heure bu sumee ko tey Boy Niang euh, ci wàllu physique est ce que jàpp nga ni combat bi mën naa jeexee ci physique ci côté Boy Niang wala déet. Boy Niang moom li ma la mën a xamal mooy moom moo war a liggéey li daan booy Balla Gaye. kon mais li mu liggéey da nga jàpp doyul. ah xaw ma doy na xaw ma doyul de mais am na staff digal nañ ko ni mu war a stratégie bi mu war a bëree ak Balla waaw na xaar rek parce que Balla Gaye moom du mbër moo xam ne day xaar kenn bu arbitre sifflé li mu appliqué li nekk ci boppam lay appliqué li mu entraîné lay indi lu mu ci am jël buy daanu ci lay daanu buy daan ci lay daan. loolu moo tax sax match nul parce que mën naa ni carrière benn yoon la ko mën a def. d'accord léegi Balla Gaye ku match nul ak moom match nul bu ñaaw ngay gis de parce que day tàkk sa kaw de. loo mhm. tax match nul ak moom yombul de. Mhm. bëgg mat match nul ak moom sax taxul nga match nul ak moom. Mhm. da ngay bëre pour daan ko. te làmb ji xeex la ak bëre. Balla nag warut amatul bis bu muy yenn quoi. man Guédiawaye laa dëkk je suis un dirigeant li may conseillé waa Guédiawaye mooy xamal leen ni Balla Gaye amatul lu muy prouver ci làmb. gravir na échelon yëpp ci làmb ba indi nu roi des arènes daan na ay rakam daan ay magam daan ay moromam léegi nag ki liggéeyam la nekk comme ci liggéeyam la nekk liggéeyam mooy bëre. entraîné na indi forme bu rafet na ko ñëpp jàppale mu dem bëre ji ndam yàllaa ko moom kii daana ku dul daanu ndam yàlla rek moo xam. d'accord léegi mais defal li nga war a def yow ba boo sumee ko say supporters du nurus. d'accord loolu am na solo léegi bu ñëwee ci wàllu bëre ah. ah ñoom ñaar ah, boo xoolee booy ñaar ci ki mu gën a aay mooy ki naan ko ma rey la boo xoolee Boy Niang adversaire bu mu song souvent da ci xam ne dañ koy song pour kaay ma rey la souvent day xaw a mën a ci ñoom te Balla Gaye doonul défenseur mais attaquant la est-ce que loolu euh, aussi tamit. waaw Balla Gaye bu ñëwee ñu ko euh, euh, bañ indi kaay ma rey la na bu ñëwee bëri li Tapha Tine bëri wala bëri la Lac de Guiers bëri na. Mhm. lamb dañ lay séentoo fital nga fit ñu séentoo la fit da ngay wor. Mhm. boo dul wor doo mbër. Mhm. lamb foog nga mën a wor pour am stratégie bi ngay daane sa adversaire ñoom nan xool li ñu calculer rek ñoom noonu lañ war a pour daan Balla Gaye parce que Boy Niang dos au mur la def fi mu toll nii dafa ñàkk ci ñaari luur am ñetteel bi kon dafa war a calculer nu muy def ba daan Balla Gaye moom li muy indi boo demoon tey fëgg ko moom la fanaanoo te loolu lay appliqué. ñoom ñaar ci wàllu bëre kan moo jëpp avantage ci wàllu bëre ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañu ñoom ñaar ñëpp dañuy bëre ñoom ñaar ñëpp dañuy bëre. mais adversaire yi Balla Gaye daan ci bëre Boy Niang daanu leen ci bëre. kon da nga jàpp ni jàppante bi Balla gay la gën a arrangé ko Boy Niang. Balla Gaye man xeex bi baax na ci moom bëre bi baax na ci moom. Mhm. boo xeexee daa war a xeex bu bëree daa war a bëre. Mhm. ndax bëre dóor la ñu wax. Mhm. bëre dóor la ñu wax. Boy Niang day bëre day xeex. kon Balla Gaye na il faut s'attendre que ni dafa war a xam ne moom day bëre si. Ah. mais nag xeex yu buntu la rek mais bëre moom bëre dóor la ñu wax. d'accord. su la xeex arrangé da ngay xeex bu la bëree arrangé xam nga Balla du mbër moo xam ne fi mu toll nii sax coach da koy wax li nga war a def ci la am na expérience bu toll nii boo jàkkaarloog adversaire am arbitre siffle rek mu xam li muy appliqué d'accord parce que mi ngi bëgg a durer ci làmb ji quoi d'accord d'accord combat waru su ko yenn sax moom dëgg la léegi hmm. euh, euh, ñoom euh, Balla boo xoolee jàkkaarloo yi ah, booy Niang da doon def li nga xam ne mooy bataille psychologique est-ce que booy Balla Gaye du jàpp loolu ba ñëw bëree loolu parce que ci jàkkaarloo yi Boy Niang danaan ko géej waaye dama faa teg sama ndënd dem na ba ni ko daan naa sa rakk bi nga bokkal ndey ak bàyyi est-ce que Balla Gaye tamit du jël ni man damay ñëw pour venger wu pour mer bëriwaale ak loolu ba mu indil ko pression ci combat bi. xam nga loolu tax mën ko indil pression Balla Gaye war na am expérience bu toll ni nu lay nu lay merloo ci ay wax xam nga lu ci mer mais euh, Boy Niang ban adversaire la mujj am géej waay ah Sa moom la mujj am. waaw wala wala Lac de la mujj am. waaw Lac de Guiers Lac de lu mu caa lu mu ca jëlee lu mu ca jëlee géejawaay laa ko wax géejawaay géejawaay Lac de Guiers nga fi mujj am. waaw mais Lac mi nga mujj am defet nga ci jëlee. waaw kon kay tegoo fi sa ndënd takoo fi sa gaal. mais mais ñee da leen daan ci bëre te lii par avertissement la lan. ñee da leen daan ci bëre booy ñaar fa daan guy gi ci bëre daan Sa Thiès ci bëre. waaw la déggee daan ko par avertissement. ah seetaanu combat ba avertissement lañ jeexal làmb ji mais am na am na lu am na lu fa xew. avant li CNG teg laa wax. Ah, waaw bu fekkee nag li arbitre bi di wax ngay wax. waaw arbitre bi li mu wax mooy yëkkati loxo mais sit kay ange bu tegu ci suuf kay gis nga ko fan nag wax dëgg. kon da jàpp kon da jàpp ni Balla gay du ñëw pour pour faj mer ci combat bi. waaye lu tax muy faj mer seen i combat seen combat la combat Balla Gaye combat Balla Gaye la mm-hmm. Balla Gaye bëri si waale wul loolu yabunu sax. Mhm. bay bëri si waale ay en wala mer wala déedéet. Mhm. non non non non am na combat yu ëpp coow ëpp dan gën a danger fuuf yu Balla Gaye bëre te andiwaale wul mer wala coow. Mhm. Balla Gaye yàq ko fi lu ne. wax ko lu ne wax ko wax yu garaaw ci ci ci làmb ba ay problème am ci mais ba mu ñëwee ca làmb ja daa bëre daan ñibbi. te kookaa gën a nekk mbër mu mag téeméeri junni yoon. kon Balla tollatul fu mu yanoo làmb. bu ma bëree waale ay diw daan na diw ak yooyu lu tax ñooñu bi nu fay ko seen kër ko yóbbu takk ngeem da ngaa mën yow da ngaa a fajal mer ñëpp. wala nga jëlal revanche ñëpp. dëgg la amul làmb kenn mënul kenn. Mhm. ki yàlla àndal rek moo fi ne. Mhm. mais combat bi tey waa Géejawaay ban taxawaay ban taxawaay lañ ci am parce que parce que parce que boo ñaa sonal na waa Géejawaay nag démb open press sax da ngay dox déggu naa la non combat jar na waa Géejawaay génne saraxut 45 kilos ngir boo ñaa libéré ñu mel ni combat bi dafa indil pression waa Géejawaay. man tant que dirigeant. combat bi indi lu ma benn pression. Mhm. parce que li booy ñaar def géejawaay ay mbërëng Balla Gaye def na ko Pikine. Mhm. ñaata mbëru Pikine la Balla daal. ama seen. déedéet bul yem foofu rek gox boo dem da nga mbër boo xam ne dugg na fa am fa 4 wala 5 victoire yooyu nun man yooyu ñu luguma quoi. xam lan mooy problème bi mooy combat bi Balla gay la ak booy Niang xam na Boy tey bu daanoon Balla gay ci làmb la nekk daan naa Balla gay lu champion lay daan dina ko yóbbu ci yenn niveau yi mais pas waa géejawaay yëpp nga daan ah parce que la de Guiers géejawaay la yeewoo te dalaa daan te fa yogoo nag ah daan daan la rek. Mhm. daan daan la rek. Mhm. booy ñaa daan Balla Gaye fan la ko mën a yóbbu. bokk ci VIP bi booy ñaa demagul VIP bi de. non man jili nag ni ngay waxee nag daa mel ni yow amateur nga quoi. xam nga yow jili daa mel ni waxi waxi far géej waay nga wax. non parce que parce que bëreeg Tafatine. waaw bëreeg Lada Guère VIP. Tafatine du VIP. Tafatine du VIP. waaw la. Euh, Lada léegi dañ laa daan dañ daan suñ ko dafa examen bi passé na ko mais encore passé gul examen bi dimanche lay passé baccalauréat am ci làmb bu daanee ma accepté ni VIP la bu daanoo. day may loxo booy ci ginnaaw di ñëw. Mhm. làmb noonu la dangay daan dem daanu xaar. Mhm. loolu moo nekk ci làmb. Mhm. tey Balla Gaye boo ko doon yab ci combat bi loo koy wax. toog ci tànkam bu waree xeex xeex bu waree bëri bëri Balla moo paase mbër moo xam ne xool mbër moo xam ne da naan ko sax boo ñëwee da ngaa song war a song wala danga ngaa war a xeex. ci boppam moom expérience bi mu war a am ci boppam bu arbitre sifflé rek day ñëw ci bopp bi man li ma koy digal mooy combat bi jëru sax muy doon combat boo xam ne dañ koy commencé mën ngaa bëree mën nga xeex indil li nga am. ji la na da ngaa xeeb booy ñaan nag. kan yow. non xeebu ma ko mais nag. parce que da nga ni may ngay waxee dafa mel ni Balla Gaye day ñëw cax cax de booy ñaan teg ko nële. en tout cas bu doon ci CV la ci këyit ci këyit boxe wunu même catégorie. mais attends foofu man du ma d'accord xamul dax waaw booy ñaan ñi mu tollool ci ay adversaire daan na leen. Balla Gaye jamonoom ñi mu tollool daan na leen kon nag Boy Niang moom nekkul ni euh, dafa ñëw ba rek Balla Gaye rek def fi dara mais ñi mu tollool ci ay adversaire am jàmbaar la mbër la champion la daan na ay moromam waaw dafa daan ay moromam daan ay magam daan ay rakam waaw du nu benn doon roi des arènes du nu benn boxe wuñu même catégorie quoi qu'on dise boo génnee boo génnee ay géejawaay laa dëkk far man làmb laa faral waaw laa faral li am ci làmb dama koy wax Boy Niang xale la am na doole mën naa bëree amul daan na génération amul ku mu mënta daan ci làmb encore une fois. waaw dama ne dama ne. waaw dafa marqué empreinte am ci làmb dafa bind ci histoire làmb. waaw Balla kenn du moom. Mm-hmm. am na fit mën naa bëre mën naa xeex te champion la. tamit combat bi ma jaaxal mooy Boy ñaa daf ko ñeme. yow tamit xam mbër mu mag ak mbër mu ndaw mbër mu mag ak mbër mu ndaw Boy Niang daf koo ñeme ci lan. mënoo góon yéen booy ñaata koo ñemee te dimanche jotul. non maanaam ci wax Balla gay mbër mu daan bëreeg moom da nga daan sóoraale da rek moo daan wax mais combat bi euh, ci côté wax dafa mel ni booy ñaar dafa ñeme Balla Gaye carrément ba dugg ci ci ci gardam. oo oh, loo xam làmb moo dul nag waxee kese làmb jëf la man nga ñemee nit ki ci wax parce que signature de contrat la say mbokk ëmb la ñëw toog nga lekk say ginaar wax lu la neex. Mm-hmm. yow mii bu la waa géej way ëmboon ni la kaay tajeeg booy ñaar boo waxee nu boo demee da nga koy rey. xam nga loolu. mais nag bu arbitre sifflé ci la ñuy xamee ndax Boy Niang ñeme na Balla Gaye wala déet. d' accord ñu gis ni aussi tamit waa Géejawaay muy mbëri fi jot a nekk démb gis nañ leen ci open press bi ñoom guy gi Sa Thiès bu mel ni dañu def benn solidarité pour génnee pour génnee Boy Niang Géejawaay père gars yi nelawuñ nag. ah mais non mais loolu moom feneen ko fee xam nga dañoo gis ni Géejawaay Pikine dañoo def deux cent pour cent. Ah. deux cent pour cent Pikine paa ñëpp nga jël 200 pour cent Pikine mais waa Guédiawaye Guédiawaye ñoo jëkk def 100 pour cent 100 pour cent wax dëgg yàlla fii quoi qu'on dise Balla Gaye mooy leaderu Guédiawaye. dëgg la mooy seen brassard capitaine moo koy moo porté brassard bi. dëgg la xam nga nekkul sama école. Hmm. mais brassard bi moom moo koy porté fii ak Guédiawaye. dëgg la parce que moo def lu kenn deful fii Guédiawaye. moo nu indi xool victoire bu ne moo nu indil victoire bu ne. moom moo ñu indil victoire bu ne. Mhm. comme moo ñu indil victoire bu ne nag mooy capitaine bi il est obligé bu amee jour bis boo xam ne dafa war a génn géejawaay gépp mooy mobilisé wu nekk ci ginnaawam. Mhm. même mouvement ànd dooleel làmb bu géejawaay dinañ gis nu def ci taxawaay bu doy waar parce que nag ñun Balla Gaye la ñu am ah quoi qu'on dise. Mhm. tey Balla ñàkk combat bi est-ce que yaakaaroon ni mën na ko indil empêchement am li des ci carrière am parce que bala xale la war na mën a bëriwaat ay 5 combats ba 6 mais Balla mu ngi ci liggéeyam âge bi mu am bu liggéeyee dese na ko ci ci licence am comme moom pour nu retirer licence mën naa bëri cinq ci kanamam. ci liggéeyam la ne déggoo li ma la wax léegi man la man man Balla dafa ma daggal jéng yi man amul benn pression bu ma teg ci Balla. c'est que en tant que sportif lay wax ah waxuma supporter boo xam ne dafa bëgg Balla nii rek dama ne la Balla actuellement amul lu mu desel waa Géejawaay ci liggéeyam la nekk nag daan daanu match nil moo fi nekk. mais lu mu waroon a def def na ko. Mhm. lu mu mën di def waa Géejawaay dañ koy dañ ko koy muñël dañ ko koy accepter. Uh-huh. ndam lañu bëgg nag. mais leneen lu amoon tamit dinañ xam ni. Uh-huh. vraiment leneen lu am dinañ xam ni vraiment euh, lii la yàlla dogal. mais nag la moom ku dem ba indil la roi des arènes ñu indil la mbër moo xam ne kenn mësu ko daan mësul dégg muñal. dégg ne nga daan ko ñaari yoon ci genn tàkku noo indi Tapha Tine muy fete gaay yi. nga ñëw duma ko daan ko <laughs> mais kooku. père nag ñu nga tax ñaar yoon. mais yow tamit wax dëgg yàlla kooku lu la desel ci làmb. ah mais Boy Niang tamit boo ko xoolee ci Balla Gaye tamit da daan gaa mais Boy Niang tamit wax ma koy wax Boy Niang ay Yékini dégg ma benn booy tamit kuy jàpp jaan doo faale jiit. booy ñaa am na combat dimanche man maa la wax loolu dimanche la am combat dimanche lay passé baccalauréat moom xam na loolu waa Pikine xam nañ loolu. Mhm. dirigeant yi nekk Pikine yor ko. ménager sama xarit la sama doomu day la mooy président de ménagers. man je suis le secrétaire général des ménagers. ñoom nañ xam ne am nañ komba dimanche loolu mooy lu leer duñ leen may Papa Ndiaye. ah daa mel dara géej waay bi yëngu na nag. Ah, mu yëngu parce <laughs> que na yoo xam ne saa waay noonu. parce que parce que cappaajër bi da leen a sonal nag. waaye koo gis nag géejaway la bëgg a bëreel. koo gis waa géejaway la bëgg daan moo gis muy takk ngeem. waa géejaway la bëgg daan mooy bës ci ñoom. Uh-huh. parce que fii la raay fii affaire bi bu joo. Uh-huh. d'accord léegi damay ñëw ci open press yi nga xam ne jot na fi am boo xoolee côté waa Pikine mu mel ni ñoom ñoo gën a bëgg waa euh, géejawaay combat bi mobilisé wu nañ ñoom Eumeu Sène ak ñoom Sokh ak ñëpp ñëw encadré wu mu mel ni lamb ji nar ta yomb côté mobilisation mel ni waa Pikine ñoo pare waa Guédiawaye. ah dé ah c'est Bari dem. maa ngi fa woon mais nañ ñëw ci Pikine ba pare. waa Pikine ah waa Pikine moom seen stade ba daa tuuti stade ba tuuti feesal ko dafa yomb. Alassane Djigo Alassane Djigo day dara école bu stade bu ndaw daa yemoon Amadou Bari Amadou Bari kam yow tamit Amadou Bari parce que ñaar ñaaram la. Uh-huh. fu Amadou Bari yaa ngi mel ni que naan arène nationale ak Iba Mar Diop. la. arène nationale ak Ibamar rouge bi donc. Ah. day fees Ibamar du nu benn. dëgg la bu dee mobilisation donc. Ah. du nu benn. dëgg la dëgg la ma ma ñëw ci côté côté mobilisation waa waay mu mel ni tamit 100 pour cent Géejawaay beeg 200 pour cent bi ak waa GFC mankoon nañ pour jàppale ak ñoom Ahmed Aïdara ñëpp génn nañ vraiment. pour gunge seen bu dëkk Géejawaay. Ah. am deret sang wu Géejawaay sa yaram laa sang bu nekkee sa yow. sa sa ci yow yaa ngi ci ginnaaw Balla di préparer wu pour dimanche. Uh-huh. leer laa la wax. écrit bu fi am récépissé ménager bu fi nekk président écrit bu fi nekk mouvement association bu fi nekk muy fubal muy muy muy bëre yaa ngi ci ginnaaw Balla Gaye. Uh-huh. Guédiawaye moom danaa la xamal leen. amul lenn loo xam ne da koy bàyyee kenn sur le plan culturel ak sur le plan sport sport moom boo nee Guédiawaye ci kanam la nekk culture boo nee Guédiawaye ci kanam la ñuy nekk. d' accord léegi ñun town bi amul lu ñu envier benn commune. d' accord ah. léegi euh, ma ñëw ci li nga xamante ni mooy open press yi. gis nañ fa loo xam ne daanaka CNG daf daanaka ñaawlu. Hmm. mu di wàllu kagul yi. yow nga nekk CNG nekk secrétaire des ménagères. Eh, loolu noonu est ce que mbëri tamit bàyyi nañ ci xel ak lan ngay wax ci loolu. waaw non ak encore une fois man nekkuma CNG dama dama dama fay dem. Oh, day nëbbatu nag quoi waaw ah, man man. ci ménage laa. waaw da ngay nëbbatu père ménage laa waaw d' accord. secrétaire waaye la léegi. foofu dama fi alerter waa Géejawaay parce que ñun waa Géejawaay lu ñu def nu toppandoo xam nga kagul gis nga open press waa Pikine. waaw xam nga ay kagul lañ sol. waaw ku fi génne kagul ku tax nu xam kagul du waa Géejawaay. waaw nun def day def effet. mais démb tamit waa Géejawaay sol nañ ko. waaw mais comme nun lu def day def effet. léegi dañuy wax leen loolu bu fekkee par exemple euh, CNG bind na ci wax na ci. ci réglementation làmb c'est formellement interdit dañ ko tere. léegi loolu sans ngay egsi ci waa CNG boo solee sa kagul du dugg ci stade bi sécurité bi bu buñ ko jisee mën nañ laa indil problème doo dugg. parce que tamit sécurité bi xam nga ñi ma sol kagul sax di dox ci mbedd yi xam loolu sécurité bi man dañ koy tere léegi buñ la bàyyee nga échappé vigilance wu sécurité bi ba dugg ci stade bi ak moom mën nañ ci am ay conséquences. puisque CNG bu boobaa règlement lay appliqué. te règlement mën nañ laa dagg loo xam ne wax dëgg yàlla. kenn du la ko yéene. Mhm. xaalis bi ñu ciy dagg day bari. loo tax nañ ci def attention bépp mbër boo xam ne règlement bi tere na la lu mu la tere bu ko def. parce que boo ko defee mën nañ la dagg loo xam ne xaalis boo xam ni tey ñi ngay àndal te amuñu kër mën nga leen koo jox nu jënd ci kër. ñi ngay àndal te amuñu oto mën nga leen ko jox nu jënd jënd ci oto. parce que lan ñuy dagg du doon lu ndaw ndax combat bu mag la. te boo échappé vigilance gendarme yi ci bunt bi ba dugg si ci biir CNG bi ak moom dugg si ci kuur bi làmb ji mën nga cee am sanction bu garaaw. dëgg la ñun nag waa Géejawaay lu ñu def moom moom la ñëpp di toppandoo. dëgg la toppandoo gi moom moo leen ci neex rek fi mu toll nii koo gis day sol kagul. dëgg la fi may jeexalee euh, muy daj dëpp gi sànq ba tey yaa ngi wax di wiiri wiiri li fi Balla Gaye def ma noppi euh, ma déglu Eumeu Sène mu ni euh, booy ñaa bu ko neexee na teg lewal teg deuxième bu arbitre sifflé mu ne ko ñi ngay daanee Balla Gaye parce que am na fu mu jaar ak Balla Gaye <laughs> wax loolu Eumeu Sène nga ne bu ko neexee. Eumeu seen ma déglu ko mu ni Boy Niang bu ko neexee jour lamb ji. waaw na teg lewal teg deuxième. bu arbitre sifflé mu ni booy ñaa ni ngay daanee bala gay jaar ko fi mal daan jaar. ah loolu su ko neexee waaw waaye Modou Lo tamit mi bokk ak Balla Gaye ci non non. <laughs> Oh, déglu ma rek mi bokk ak Balla Gaye añ bërki dem wala nu wala leen nu doon ay gaañ su ko neexee moom it mun ko fii ngay jaar sa waay. non non non lii lii ah. non lii 100 pour cent Pikine la. ah monsieur mu defee loolu am na droit jàppale wax la rek di nga jàppale gi ngay dégg yëpp. ama seen ñi mu wula taxaw ci mikaayu Boy Niang. ama seen ñi mu wula ànd ak Boy Niang di tuus parce que loolu dañ koo tere 100 pour cent bi ci ay wax la yem ak seen seen 100 pour cent noonu mais biir làmb kenn ku ci ne sa écrit ngay gérer ku ko ci def entité ba nga yor mën nañ ko suspendre comprendre nga. waaw que dëkk parcelle war a mën a ñëw conseil euh, Balla Gaye boo ko écarté rek war nga man a écarte ki nga xam ne ak kii bokkuñu écrit entité yi bokkul amoo droit bokk ak moom tous amoo droit toog ci moom c'est formellement interdit. mais tey texte wax mais tey booy ñaa ànd ak Eumeu dongali biir stade loolu noonu mënut a travailler ci bopp Balla Gaye nu muy travaillé ci ci bopp Balla Gaye. ama seen ama ama seen xanaa invisible la wala moo ah, mën si làmb. am na am na fu mu jaar ak waa ji. waaw làmb noonu la da daan ñi ñi la. du 2-0 la ko dóor. ah waaw. moom ki ko dóor 2-0 du Modou Lo. non waxuma Modou Lo Balla Gaye seen làmb Balla Gaye Modou Lo ba kenn mënul kenn da ngay daan ñi ñi la. <laughs> d' accord mu ngi noonu ah moo nekkoon suñu consultant mais tey. tey nekkul consultant parce que commencement bi dafa ma ñotti amateur mais tey dafa far parce que deret géejawaay bay yëngu. non la façon bi nga ma posé question yi la xam nga tey boo ñëwoon rek ni ma làmb ci réglementation làmb mën naa laa wax ak yow ci réglementation làmb. boo ñëwoon tamit ni ma ni ma sérieusement combat bi dama bëgg nga defal nu ci ay analyse mën naa laa defal ay analyse mais yow ci bàll nga ma cuq tey. te boo ma ci cuxee ma wax la li ma ci xam. Uh-huh. parce que nag gis naa ne benn camp bi danoo jàpp confiance ba suba danoo jàpp confiance ñoom pour ñoom làmb ji jeex na ba pare. Uh-huh. parce que da ngay gis wax ji coow li cërëfa tëfër ji mais ma leen di wax ni bu demaasee nu xam ne golo ci ligg leen koy yeew. Uh-huh. d' accord d' tey lan ngay ban message ngay lancé supporters yi. ak aussi ñiy dem ci wàllu violence ak yooyu comme lamb ñun moom yàlla daf ñoo nattoo chaque jour ñu ngi ñuy xaar ci violence. waaw tey ban message ngay lancé supporters yi. léegi man message bi may lancé supporters yi mooy supporters yi Balla Gaye yàgg na noo ëmb Balla yóbbu ko lamb supporters yi Balla ña naan sol ay t ak ay blouson ba xam nga jiili da wax fii xam nga jiili moom day far na quoi non mbër yu ndaw yi booy ñooy créer violence ñuy bëgg seen mbër ñu yëkkati ko mu jëm ca kaw au sommet maa pigin nga wax ci patax patax ñooñu ñooy créer violence mais gi yooyu romb nañ foofu ay responsable la géeja way Balla la ay amateur responsable lam sañ sa ba rafet ñëw toog stade xalaatuñ sax di def violence di ko jëmale si géeja way géeja way moom kenn du leen tudd ci violence kon waa Pikine ngay ngay conseil ci wàllu violence ah ñooñu nag comme ñoo jege stade bi nan nu nan rek bu bu bu ñëwee silvisé bu nu silimal quoi nan nu bàyyi rek nu daan waaj jaaraat ci buntu Canada bi dem ñibbi ndax ah, loolu nga gis waaw ah est-ce que est-ce yoo xam ne la sax moom xam nga ne yow kenn yebu ko ba koy andil ay ay détails problème bi mooy booy nan sol rafet waa géej way yëpp mobilisé ñoo toog stade seen mbër takkusaan gu ne am na ko ci digg géew bi moom moo leen di defal li ñu bëgg. li ñu bëgg ay may naa la une minute may naa la dix minutes arbitre siffle nga tàkk sol mbër mu ko fi def ci moom nga ko gisee ñi ci des ñëpp seen fii li fi nekk day tëf tëfi coow lee ci nekk rek. am mais billaay tiitukaay tiit fu muy nekk ci nit boo ko laajoon bàlla xamu ko mën ngaa jëndu fit nag ba bis ba arbitre sifflé nga ruux d' accord d' mu ngi noonu ah tey tey lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy bépp nit bu dëkk géejaway bépp sportif bu dëkk géejaway na mobiliser wu nekk ci ginnaaw seen mbër bañ indi benn violence sañse ba rafet dem làmbaje bëre daan ñibbisi. mu ngi noonu ah moo nekkoon sunu invité tey. lu dama gis ay dirigeants Pikine. waaw ñu ñu waaw. da nga gis ay dirigeants Pikine. dama gis ay dirigeants Pikine. yoo xam ne dañu dugg ci dañu dugg ci combat bi. waaw. parce que ma wax leen nag ñooñu. parce que man parce que man ni nga analyser tamit mosuma koo ko mosuma koo gis. waaw non tey dara bay ñëw quoi. parce que parce que dafa am ñoo xam ne foog ma woon leen ni man ba may nekk ci làmb ñoom nekkuñu ci lam te tey ñu ngi def ay analyse di wax yoo xam ne da leen leer ni kii waxu faratax ni wax waa Pikine waaw moo tax tey nga dëggal sa bopp ah noonu fortoor noonu foog la noonu leen rek jege nit bu la màttee sama papa nee na boo fayul li da ngaa war a siñ ba mu xam ne am ngay bañ waaw Balla Gaye am nañu nekk ci ginnaawam de de grand dirigeant ay bopp te xam nañ li ma leen wax ñu nekk ah, ci ginnaaw d' accord su jaam dofet xulal mbokk ma deful d' accord ba dimanche d' accord soreetul dimanche xam nga dimanche xam nga ay a ci des lundi fii lañ koy fii lañ koy waxtaane waate allahu rabbi incha ah, ma <laughs> ngi noonu ah moo nekkoon suñu invité nekk suñu consultant moom mooy consultant kër gi ah nekk suñu waay vraiment nekk disponible CNG laa ko jëlee mu ni ma damay añ ma ne ko doo añ mu ne ma lëwal ma ne ko doo ko doo ko naan ñëwal mu nekk ku baax nekk ku disponible aussi tamit ñu koy ñaanal yàlla dafa la jàmm salaam tey boo amee ñooy sant comme yow léegi da nga am ay sponsor ak ay service commercial. léegi di si di sant bu baax nag waa marché bi waa marché bu bees quoi. waaw bi mooy mbedd bi nuy defaree. ci di waaw alaaji Mor Dia Baye Fall nekk fa. waaw fii mooy place bu Bada Thiam. waaw bijouté bu mag bi. waaw ak ñoom Moussa ak ñoom ñëpp ñu nekk fi. wax dëgg yàlla di leen ziar di leen sant di leen gërëm quoi. d'accord xam ne ku bëgg ci ay takkaay fi. d'accord xam nga xam nga lii lépp waa People 221 ñoo ko may ah. <laughs> mais bu ñu ko changé woon aussi tamit lii lépp dañu ci fekk ay service commercial gratuit lay def. <laughs> mu ngi noonu waaw ah, nangul nañ ko ko muy sunu père bu baax a baax. ok ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ci sunu yeneen émission fii ci People 221 One